ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen foot boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien kafaytani فسرت صندقا صندقا كفيتني هيهبا ما تجاجا كنت في البحر فسرت صندقا فسرت صندقا فسرت صندقا عند الهداية فليوجه defaral sëriñ bi micro bi waaye cantuk ñépp cantuk ñépp ñi fi teew ñépp ña jiitu ak ñi ci topp ak ñi ci toppaat cant gi yépp dañu koy tënk teg ko ci loxo Seydina Ousmane bu bàyyi Cheikh Khady ngi ci biir sant wépp ñi ci ñëpp ñi ci di bàyyi Fall ñëpp ñu teg ko ci loxo Cheikh Ndigal Fall mii fi jógal léegi ci di waa Thiès ñëpp ñu teg ko ci loxol a Cheikh Salihu ak Serigne Khadim Lo Gaydel ak kilifay diine yi nekk ci dëkk bi yëpp buñ ci jógee résumé cant gi xam ne mooy autorité yi dëkk ci région bi ci capitale bi tàmbalee ci président du conseil régional ci maire bi Talla Sylla ak at adjoint Youssouf Diop ak le gouverneur le préfet ñoom ñépp ak ñiy politique ak Abdou Mbaw mi fi jóge léegi le vice président de l'Assemblée nationale waaye ñooñu ñi ci di ay député nuyoo bi de teg ci loxo Soxna Dieng Mbacké qui est la présidente du parti de la vérité defe naa ni soxna avec professeur Sène yaakaar naa ni dootoo wéet ci parti de la vérité loolu mënuma koo ñàkk bañ a wax dama leen wax ne bu bis bi jàllee damay soxla ay kàngami journaliste pour wax ak ñoom ci réew mi xale yi dem ci géej gi bëggatuma ñu dem nañu toog Serigne Touba dina leen wutal solution jarul ñuy dem ma ñëw. muy Tawfekh ju